yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu nuyoo leen siyaare leen jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi xalifa général kullu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha. di ko ñaanal yàlla sunu boroom mu dolli ko fee yàggal te wéral ko ba naa li mu am ngir liggéeyal ko maamam xaadimu rasul mu def ko te ànd ko ak moom ku ne xam na ne tey jii ñoo ngi fii ci pàkk bu tedd bi di jumay Touba ni nu ko baaxoo defee rek at bu jot euh, bokk taalibe yi nga xam ne ñoo féete ca Espagne yore fédération daayira Serigne Touba yi nekk Espagne te Serigne Mbacke Ndiaye jiite ko ak Serigne Mor Tambédou bi nga xam ne mooy président d'honneur bi ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal at bu jot ñu baaxoo ñëw fii ànd ak ñoom liggéey bi ci weeru koor wu nekk indi suñu barkeelu lu jëm ci wàllu ndogu yi ku ne xam ne itam euh, ñu ngi fi ñëw ci njiital sëriñ maam daam loo moom Cheikh Moustapha euh, mi nga xam ne mooy président coordinateur bi nga xam ne moo nekk fële ca Touba Espagne jiite liggéeyub Muxaddamatul Xidma ànd ko itam ak ki nga xam ne mooy sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy président Euh, yore liggéeyub daayira Muxaddamatul Xidma ca Touba Espagne ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ko andal yëpp at bu jot fédération bi day sàkk ay euh, ab ay ndaw yabal leen ñu indi seenu barkeelu yi nga xam ne mooy jëm si ndog yi ren noonu lañ ko defee ànd nañu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal muy alxaaji Abdou njaay mi nga xam ne mooy président bu Canarias ànd itam ak ki nga xam ne mooy euh, Serigne Abdou Cissé Samb ak Serigne Malle Ndiaye ak mbooleem kilifa yi ak Serigne Adi Touré bi Touba Palma ak mbooleem kilifa yi nga xam ne rek ànd nañ ci ñëpp ñëpp a ngi nii teew xam naa bu ci kanamee ban jël kàddu gi dinañ jox yenn ci kilifa yi ku mel ne Serigne Alhaji Abdou Ndiaye mu yëkkati kàddoom bu noppee itam ñu jox euh, Serigne Alhaji Adi ture moom itam mu yëkkati kàddoom ak euh, Serigne Dame Lo bi nga xam ne mooy jëriñu Touba Ibisa ak Serigne Abdoulahi Diop bu ko defee noonu lañ ko fas yéenee tënk rek. Euh, bu ñu noppee itam ñu daal di déglu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu fekk si te ñu yore liggéeyub daayira Muxaddamaatul Xidma muy Serigne Abdoul Ahad Bousso maam Asta moo ngi fii euh, ñu fekk ko fi te bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ak Serigne Jili Ñang euh, moom Serigne Muudu Maamun Ñang moom it bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi kon xam naa rek dañuy daal di jox kàddu gi alxaaji Abdou Ndiaye bu ko defee mu yëkkati ay kàddoom. Touba Espagne njabootu lislaam gi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare di leen jaajëfal itam di leen barax te balantaq di nuyu mboolem koo xam ne mi ngi ci réewum Espagne yi waaye di jot li sunu nuyoo sangu si tedd yi ñu àndal ci kër gi ci ci jumaa ji ñu ngi fii ci jumaa ji nekk leen fi eh, di siyaare ki nga xam moom la yàlla dogal mu nekk ci kanam njaboot gi sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fa yàgg lool lool te wér bi barke Seexul Xadim di siyaar itam sunu jëwriñ bi nga xam moo nekk ci jumaa ji sëñ Afia Boussa ak ñu bokk liggéey bi ñëpp bu ñu leen tuddee rek dafay yóbbaale ñëpp atuwaar kàlla waaye bokk Espagne nag wax dëgg yàlla kenn desut buñ ci tuddee ku mel ne Alaaji Tura bu Palma rek dafay yóbbaale sëñ Mala Ndiaye ngi ni sama wet ak sëñ si Cissé Samb sëñ Daam Lo bu Ibisa waaye sëriñ Touré mii ngeen ndeysaan sunu loxo ak ki nga xam mooy porte parole bi mooy itam fatuwaar kàlla yéen a ko dégg léegi ci waxam ji rafet ji kon dañuy dellu sant bu baax di leen xamal li ngeen ñu joxoon ci li nga jëm ci addee ji mu jëm ci jumaa ji moom lañ fa séeré jébbal sun sang bu tedd bi seen affaire bu sa ak njabootam nga bokk liggéey bi ñëpp di jaajëfal itam sunu rakk sunu lépp am daam loo moom Cheikh Moustapha waaye duñ fàtte tam Cheikh Assane Diop mi nga xam ne san sonn ci lool waaye ñu ngi sant nag bokk Espagne yëpp béyu kenn fu waaye mën a nekk rek ñu ngi koy yóbbante ak cant ak gërëm yàlla nañ ko teewaat déwén te kenn bañ a manqué bi barakat Cheikhna Cheikhul Khadim ñu ngi sa jot rek suñu jaww ñu àggale ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa saddit lisaani nawir janaani safi amaani wasid barahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi saahibul fadilati Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wér lool di ma di nuyu sunu sëriñ sunu njiit al imaam Cheikh Afia Boussa ak mbooleem waa daayira Muxaddamatul Xidma di leen nuyu ci turu fédération Espagne ak mboolem daayira Muxaddamatul Xidma diaspora njiital sëriñ Assane Diop waaye nag bi ñu ñëw fii ñu ànd ak sunuy kilifa di sunuy njiit taxawu liggéey bi démb tey door a ñëw muy sunu najaay sunu baay sunu sëriñ sunu mag alaaji Abdou njaay ak Cheikh Malle Ndiaye mii bokk ci daayira Mursiya sëriñ Abdourahmane mbay eh, bu généralitaan Balancia ak Ali ak mboolem eh, kilifa yi daayira yi nga xam ne bii ñu ngi ci biir Espagne yëpp mënuñu leen lim waaye dañuy wax ne daal liggéey bii géej la ku ci jël sa guuxum ndox sotti ko ci bu la neexee géej gu la neex bu la neexee nga dem fa naan ndox ma yàgg na fa waaye képp koo xam ne kii ni it yaa ngi koy xool yaa ngi xool sa njariñ mu de la romb te ku mu romb réccu day fekk jëf wéy kon nag nan soññ sunu bopp gën a góorgóorlu ndax li sëriñ bi wax ci ne jox benn tip ku xiif dafa wax ne moo ëpp doole tabax junniy jumaa te benn jumaa ku ko liggéey fii ci réew mi ñu naan jumaa yi sëñ diw di coow sa lislaam kon bu fekkente ne waa muxaddamatul xidma fii ñu ngi dogal lu man ñeenti junniy nit jëm kaw at mu ne muy yokk gis nañ ko daaw gis ko daaw jéeg gis ko ren kon loolu jaadu na ci bépp taalibi wala bépp jullit buy wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga def ci saw ñaq te def ci sa yéene di nuyu nag ñi ci bitti di nuyu mboolem daayira yi ak mboolem taalibi yi nga xam ne ay individuel lañ ci biir Espagne jël seen addiye sasoo ko weer wu nekk ñu di ko dugal ca compte ko muy ñëw fii ñooñu it amel nañ leen cant daayira yi nga xam ne bii ne it ci njiitul sëriñ Abdou ci lañ koy waxee njaay at mu jot muy liggéeyu koor gi di liggéeyu màggal gi bu mu dikkee ñu ànd ko ak waa Muxaddamatul Xidma di leen seereel na fii tamit ci dëkk bii ñu ne wala place bii di jumaa ji tedd ji liggéey bii ñu fiy indi dañuy war a ñaan di fas yéene lu ñu fi indi ren bu déwénee mu ëpp ndax ni nga xam ne bii ne noonu ñu koy doxale ñun buñ ko xamoon ku ci def sa benn bu déwénee da nga indi fukk ba téeméer ba junni ndax waxuma la dara waaye dañ koy tàmbalee ci di tàmbalee ci daaree kaamil yi Serigne Touba ji ak ilimaanam yi bilaalam yi ak ñëpp ñuy liggéey ci muxadimatu xidma ba usnul mahab gee ci armée njëkk ya ba bàq ya ak ñu fi nekkoon te tëli ñëpp ba ci safoor yi eh, jumaa ji ñëpp danañ leen jox ay ndimbal ci liggéey bii nga xam ne bii ne mooy teew ci jumaa ji waxuma laak nag li nga xam ne bii ne moom la ñuy defal julliti yàlla yi nga xam ne ay doxandéem lañ wala seen loxo jotiwul seen gannaaw ngoon gu jot ñu teral leen defal leen ndog loo xam ne lii ne ku ko ci doon defal sa bopp da nga sànq lu bari kon nag waa jumaa ji jëf sëñ Abdou Lahad Bousso ñu ngi lay nuyu di la yónnee yónbante ci sëriñ Afia ne dana ñëwal boppam sax waaye di ko xamal ne lii ngeen ñu boole sant nañ ci suñu borom sant ci sëriñ bi ñu ci boole sant leen ci yéen tamit ñi nga xam ne yéen ko taxawal waa Espagne yàgg nañ ci bi ñuy tàmbali fii liggéey bi di indi bale yi booba jamono yi Cheikh Abdoulaye la woon ba Cheikh Saliou ñëw taxawal mu Muxaddamatul Xidma ba tey jii ñu ngi ko ànd ak waa Espagne kon nag ñun ñii dëkk Espagne sunu borom xaasal nañu ci jumaa ji xaasal nañu ci kon nag dëgg dëgg loolu nañuy fexe ba at mu ne addina bi yëpp Espagne di jiitu ca kanam yéen ñi nga xam ne bii ne tamit yéen a nekk fii ci njiitul Serigne Afia ak sëriñ Modou Mamoun Boussa liñ leen di ñaan te di leen ko sas mooy ngeen ñaanal taalib yi ci bitti ak yi ci biir ñëpp wér pelag yor lu bari wér di liggéeyal sëriñ Touba yor luñ mën a joxe addiya joo xam ne yéen sëriñ bi dana ko nangu ma dafa am sama maam joo xam ne sëriñ bi da ko waxoon loo bëgg ci pataar ga maam Mor Anta Sali nekkoon mu ne ko pataar barke ak alal mu ne ko sëñ bi ne ko alal ju leew soxna si ne ko na bari rek waaye 1930 amoon nañ ay camions yu ñu daan wax saa kon ko tax ko ay doomam la kon jox Serigne Touba dara wala nga ñaan ko moom xam na lam lay fàggu kon nag ñun ñoo ngi ñaan fii bépp dërëm buñ fi waay dugal yàlla na ko sunu borom def déwén muy sa junni junni asaka yoo xam ne yéen lu dana ëpp lii ñu fi indi na ngeen ñu baal àq bu baax nag bëggoon nañu wax lu ëpp loolu waaye di sant mbooloo mi fi teew yëpp mënuñoo lim waaye di leen xamal ne buñ fi jógee kenn ku nekk bu fi jógee na laxasaayuwaat doon jëwrin yoo xam ne ñu ni day liggéeyal daayira Muxaddamatul Xidma di liggéeyal suñu borom ci jumaa ji fii waaw di sant nag suñu coordinateur général sëñ maam daam loo ndax liggéey bii at yee ca gannaaw daana am ay jaxaso waaye biñ ko kiyee may leen nañ bañ ne nañ def commission maa tàggu Baye Abdou Ndiaye na ko nañ tànn sëñ maam daam mu loo Cheikh Moussa Karim def ko coordinateur bi at mu jot mi ngi ciy soññee di soññ daayira yi te benn dëkk jiitu kon nag moom it na jërëjëf waaye ñu topp ci gannaawam tey joxe it am nañ jërëjëf na ngeen ñu baal àq bu baax yéene woon nañoo wax lu ëpp lii waaye kon suñu bilaa li ci des bàyyi nañ ko ci seen loxo ak ñu topp suñu gannaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. nasrun min allahi wa fatun xaribun wa basril muminina. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. di jiiteel ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh di ñaan mu yàgg fi lool di siyaare sëriñ Afia Bousso ak mbooleem kilifa yi daaira Muxaddamatul Xidma di jël nuyoo boobu ak siyaar bi di ko teg ci loxo sëriñ Abdoul Ahad Bousso mii toog mu jàllal nu ko ci waa daaira Muxaddamatul Xidma bi yëpp di siyaare kilifa yi ñu àndal jataay bi siyaar bu kawe di jël jaar bi di ko teg ci loxo El Hadj Ndiaye moo jàllale na ko ñëpp ñu ngi nuyu Serigne Adia Serigne Adia Touré sunu jëwriñ Serigne Touré Touba Valencia macha allah ku lim dese waaye ñi nga xam ne ñoonu nu jiitu ni ñu lime rek Euh, kilifa yi fi toog te ñu ànd ak ñoom liggéey Espagne bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di santaat bu baax ci liggéeyu Muxaddamatul Xidma bii nga xam ni ñun waa daayira ñun waa fédération Touba Espagne yëpp ñu ngi ci liggéey liggéey bu kawe kawe ci njiital Serigne Assane Diop. ak sëriñ maam Dame Lo ñu ànd kook fédération daayira Espagne ci njiital sëriñ Mbacke Ndiaye ñuy sant bu baax nag ndax euh, Touba Espagne am nañ tawféex ci liggéeyu Muxaddamatul Xidma ndax ku xam Muxaddamatul Xidma xam liggéey bi xam ni ci Espagne di yëngoo ca ba mu tàmbalee ba léegi da gis ne muxaddimaatul xidma ak Espagne yàgg nañoo ànd liggéey bi te liggéey bi kenn mënu leen ci kon nag loolu dañ ciy sant waaye nag dañ ciy soññaat ñëpp nag ndax liggéey bi dafay liggéey bi nga xam ne moom moo gën ci liggéey yi ndax sa mbokkum jullit woor ba ngoon jot nga jox ko ndogu loolu dara gënu ko kawe ndax ni ko sëriñ aadi waxee rek jox sa mbokkum jullit mu xéewlu ba yëg ne xiifam saafarawu na moo gën tabax junni jumaa kon nag loolu liñ ci war a déggee rek mooy bépp daayira boo xam ne da nekk Espagne wala ñi nga xam ne dañoo jàpp ci liggéey bi individuellement ñooñu ñëpp nañu gën a góorgóorluwaat góorgóorluwaat ci liggéey bi ba nga xam ne luñ fi indi ren bu déwénee ñu indi fi lu ko ëpp ndax liggéey bi dafay liggéey bi ñuy liggéey sëñ Touba ci barab bi nga xamante ne mooy barabu jumaay Touba te yaakaar naa ne fii ñu liggéeyale sëñ Touba mooy barab bi ëpp wàccuwaay ci dëkk bi ñu koy liggéey ci ndogu weeru koor wi kon boobu liggéey liggéey la boo xamante ne liggéey la buy yokk waaye amul wàññiku kon kenn ku ci nekk rek boo ci defee ren junni bu déwénee da danga ci def fukki junni te ay milliards moo xew te ku bëgg ci milliards yi nag da ngay jox Serigne Touba li nga xam ne moom nga gën a fonk waaye am am junni di coppati téeméer di joxe loolu méngoowul ak liggéey Serigne Touba dëgg digg liggéey ko kon nag xam naa Euh, kaddu yi du gudd lool ndax li ci wax yi wax ji sunu kilifa yi nu jiitu wax nañ ko waaye nañu gën a góorgóorluwaat bu baax ci liggéey bi xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nuy soññ ci liggéey bi ñoo nu ci man fuuf te nit nag loo yem ak moom bu la cee mais ba pare di la ca soññ yow amatoo pour taxaw te Serigne Assane Diop kenn ku nekk xam ne pëstéefam ci liggéey bi waxuñu Espagne waaye diaspora bi monde entier sëriñ Assane amul guddi amul bëccëg du tàyyi du sonn saa su nekk mu ngi seet liggéey bi di gën a baaxee yàlla baaxee nu ñun waa fédération Espagne ñu dem ba jël sëriñ Ndaam loo moom Cheikh Mouhamadou Moustapha kërim kenn ku ne xam ne jàmbaari fàkk tëdd la du sonn ci liggéey sëñ Touba liggéey sëñ Touba rek moo ko yitteel ñu ràññee pësteef boobu ci moom jël lu toll ne liggéey bi te ko ci moom teg ko ci loxoom ànd ak moom kon loolu yëpp dafay firndeel ne liggéey bi nun amatuñ ci sago kon nag ñu ngi soñ suñu bopp di ñu mbooleem ku ñu bokkal Espagne liggéey bi kenn ku nekk yitte joo ko joxoon nga jox ko jeneen yitte ju ko ëpp yàlla noonu yàlla boole ci milliardaires yi sëñ Touba nag ñun waa Touba Espagne ndax ñun waa Touba Espagne ñun matériel yi sëñ Touba lañ kenn ku nekk xam na ni nga xamante ne noonu la ñu Seex Muntaxa def yàlla na fi yàgg loolu te wér jox na mu koy ci jomaa ji ñu liggéey ko jébbal ko liggéey bi mu jox na kërub daaru marnaan bi su fekkonte ne góorgóorlu wuñ ci liggéey sëñ Tuubaa di ci nab nabi di ci defe yitte ju kawe du demee noonu jàmbaar nag amul ku am ndigam ndimbalal yàlla moo am te am ndimbalal liggéey sëñ Tuubaa fi la ndimbal tàmbalee fi la yem yàlla nanu ko yàlla eh, saxal te yaatal ko te yokk ko te defal nañu jekku ndigal nun waa Touba Espagne yëpp ñu ngi ñaanal Serigne Mbacke Ndiaye ñi nga xam ne mooy jiitu fédération jiite fédération bi ak Serigne Mor Tambédou di wax ne macha allah ñoom tamit seen taxawaay rafet na waa Touba Espagne yëpp rafetlu nañ ko kon nag ñun ñu ànd ak ñoom ñëpp nan gën a góorgóorlu rek gën a bennoo te xam ne ci benno gi rek ci la lépp di yowee ne si wasta'simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yal na yàlla defal jàmm tawfiq taysir saadatu daarayni waxfir lanaa waafina bi aafiya takunu fii daarayni xayra aafiya mbokki jumaa ji ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di siyaare kilifa gi Serigne Afia waaye di siyaare bu baax sang bi toog ci suñu wet muy Serigne Abdou Lahad Bousso Maam Asta ak Serigne Abdou Khadir Niang waaye di siyaare kilifa yi Espagne yi commencé ko ci jëwrin ji Serigne Mbacke Ndiaye mu ngi jot li ab yóbbanteem jaarale ko ci Baye Abdou Ndiaye ak euh, Baye Adi Touré Baye Abdou Cissé Samb di wax ne xolam sedd na guy ci liggéey bi. waaye mi ngi wax ne mboolem dayre bu nekk Espagne ak gox bu mën a nekk nee na mi ngi lay soññiwaat ci liggéey bi ndax fanweeri dayre ak benn ci biir Espagne yoo xam ne ñoo fédéré wu kon nag dëkk yooyu nga xam ne ñoo fédéré wu ci biir Espagne sëñ Mbàkke nee na mi ngi leen di gën a soññiwaat bu baax a baax ci liggéey bi nee na mi ngi sàkkoot membre yi nga xam ni ñoo nekk ci ginnaaw jëwriñ yi ñu gën góor góorgóorlu jàppalewaat jëwriñ yi ci liggéey bi jëm ci jumaa ji ndax jumaa ji moom li ci bàyyee di wax doy na li ci alaaj ab dooy dox wax doy na li ci sëñ daam loo wax doy na ñëpp xam nañ jumaa ji kon nag kuñ ci soññ rek xamal dañ laa bëgg a dimbali kon sëñ Mbàkke Njaay nee mi ngi soññ bu baax a baax a baax yëpp kenn ku ne gën a góorgóorluwaat jàppale ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi muy sëñ maam daam loom Cheikh Moustapha ak sëñ Assane sëñ si daal kàddu yooyu mooy kàddu yi nga xam ne moom la jëwriñ sëñ Mbàkke Njaay yónni woon ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu aousu bi kalimatillahi taamati min charri ma xalaq wala xawla wala quwwata waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikri wa tafahumi ginnaaw ba ñu santati sunu boroom ñu ngi sant Seexul Xadiim te yaasa sunu jaayante ci moom te yaasa laale mboolem muriti sëriñ bi yëpp di yëkkatee ay kàddu ci turu sëriñ Afiya so mi nga xam ne moo jiite daayira Muqaddamatul Xidma kàddu yoo xam ni kàddu yu cant la li koy dolli ko nag kàddu yu sedd la loolu sama wàll la kàddu yu cant yi mooy mbooloo mii nga xam ne ñoo toog ci suñu wet <coughs> muy waa fédération Espagne di mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk foofu di yaxantu ca réew mooma te jóge fii ci dëkk bi wala jóge ci réew mi dem foofu di fa yaxantu te waxtu wu nekk wala bis bu nekk wala weer wu nekk wala at mu nekk wala heure bu nekk ñuy dajale lañu am mu néew mu bari di ko jëme ci sëriñ bi sëriñ Afia wax ne mu ngi leen ci sant waaye di leen ci santal sëriñ Touba di leen ci sant la Cheikh Mouhamadul Mountakha di wax na tamit ne liggéey ba liggéey yëpp jeex liggéeyal yàlla rek a wóor waaye liggéeyal yàlla jaare ko ci sëriñ tubaa nag moom jàpp na ne mooy bi gën a sakkan ndax sëriñ tubaa de naxut kenn ndax sikkuut na ñu ñii di wax ñëpp dafa naa kenn fekk ko fi ku ci nekk am na ñoo xam ne dañu seen bay fekk na ko ñuy seeni maam waaye ku ne xam ne ne ku làmb sa bopp gersuwaat tuuti wala nga gëstuwaat dara ci histoire war nga xam ne yàlla naxut sëriñ tubaa ndax lii ñuy def fii ci jumaa ji nga xam ne fi ne ñu ngi wax ay ñeenti junni ci ay nit wala lu topp ñoo fi daje di fi ndogu si ku ko wuute weccali ak xool bis ba nga xam ne moom ma ngi nekk ca Maayomba te bu dog jotee muy fëgg ci garab yi aw xob ngir tooyal xolam ngir mën a dundal sunna si yonent bi alayhi salaatu jàpp naa ne loolu wër na ne yàlla naxut sëñ tubaa te noonu nga xam ne sunu borom naxewut noonu sëñ tubaa noonu la sëñ tubaa naxadee waa këram loolu it mën nañ cee def seede soo xam kenn ku nekk ci ñun ñii man nga ko def ci sa bopp ndax ku ci nekk sa waajur wala sa maam ma yëngaloon sëñ Tuubaa ci barke boobu rek ca ngay xencu ca ngay dund ca ngay def lépp kon sikk sikkuwul ne lu waaye di jëmme ko sëñ Tuubaa xaw ma fu mu sakkanewul waaye fii ma bokk ci moom loolu man dis na koo seede te euh, seede so suñ ko defee nun nii yaakaar naa sunu waajur yi ci sunu gannaaw man na ñoo gën a seede loolu ndax ñooñu ci njëkk ñooñu ci mag te ñooñu ci gën a ëpp luñ ci dund mi ngi yëkkati kaddu yoo xam ni kaddu cant la ndax dañuy wax ne waaw góor mënut a ñàkk waaye ku defut dee si ko ko wax jërëjëf it mënut a ñàkk waaye manes na ko ñàkk wax waaye wax gi day soññi ki ñu koy wax ngir mu gën góor góorgóorlu kon daal gudd gàtt nee na mu ngi leen sant di leen gërëm ci turu sëriñ mu Mountakha di leen santal sëñ Touba nag ci jëf ji nga xam ne yéeneen ko koy defal ndax lii kat ni ko Baye Adi waxee léegi lu yàgg yàggal lu tay dong Espagne dafa yàgg ànd ak jumaay Touba ca bale ya la woon jëfandikoo ak ci lañ daan jëfandikoo di ko jëme ci jumaa ji ba Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw am kàddu gum yëkkati jëme ko ci ñoom bi mu leen di jox uh, mukkeet yi nga xam ne ku ne xam ne fam nam daan demee waaye sëñ Mountakha ne Espagne moo ko ci doy ngir ñu yeesal ko ba mu ko waxee tamit ndigal la nam ko bëggee man naa ne kawe njort sax nañ wax ci defin woowa ba loola jeexet mu tekki yeneen ndigal muy kër gu darul mën naan geneen nañ ko ko yeesalal loo xam ne moom dafa waxoon ne moo ko defalal sëñ Tuubaa ndax dafa waxoon lépp loo xam ne alali sëriñ bi la moom dafa bëggoon ñu bàyyee ko ko mu di ko def ci doole boppam waaye mu yàgg mu ne Espagne de doy nañ ma ci ñoom ndax maa ngi ñoom ñenn lanu ndax daa ndax man man fekk ci waxtaanu biiru nekk dégg naa mu wax ne am na bis ñëw na euh, jamono demee noo xam ni sama ronqañ yooyu Espagne ñoo ma ko feralal loolu moom dégg naa ko ci sëñ Muntaxa te euh, loolu yéen a ko gën a xam ndax yéen la fekk si woon ba mu dikkee la ngeen ca def yéen a ko xam la taxoon mu seede kàddu yooyu tamit moo ko xam waaye ci biiru néeg man fekke naa mu wax lu mel noonu bi mu santaane liggéey daarul mën naan bee tamit loolu féddaliwaat na ko ne yéen a ma ci doy daaw bi ngeen koy jébbal tamit am na kàddu gu ma waxoon bu ngeen ñëwoon andiwu leen benn dërëm dikk na noo ngi nii tamit jërëjëf laa leen di wax ndax xam naa leen te yéen lu ngeen nekk rek maa ngi ci biir loola kon nag loolu ak cant yàlla la ndax sëñ Tuubaa moom képp ku ñu wax ne dem nga ba ne yaa nekk ci kaw suuf ne yaa ko fi nekkal loolu sikkuwut ndax ku mat ku ko matut doo ko doon moom ku ko matut doo waxuñ ne kenn mënu ko doon waaye ku ko mënut doo ko doon ndax moom ku koy wutu rek critères yëpp dañ koy remplir ba mu mat sëkk ñu doog ko def ci sa jëmm ji te sëñ Muntaxa du koy waxantu du koy waxantu ndax ku fi nekkal sëñ Tuubaa du koy waxantu waaye moom da caa rawati moom ndax moom fi mu jaar parmele sam moom ñun ñëpp dañ ko xamandoo muy mag muy ndaw kon nag ñun man nañ seede ci yéen ci liggéey boobu ñu nga xam ne yéen a ngi koy liggéeyal sëñ Tuba xanaa li ñuy ñaan rek dañ leen dugal ci bay du sëñ Tuba di wax waq di xawa ijal la sina daamoo fii xidmati wa hablahu maaraamoo kon yàlla nañu yàlla defal loolu sëriñ bi ñaan ci bayit woowu ku ci def dërëm yàlla na ko yàlla fulal ku ci def ñaar yàlla na ko yàlla ful li nga xam ne moom la alquran di wax daal adaafan mudaafa gi nga xam ne moom la suñu borom def ci benn euh, dugub boo ko jiyee ci mu génn la téeméeri dugub yàlla na ko def ci seen liggéey bi lu ci waay def rek yàlla na ko rëcc bu déwénee ci gën koo man yàlla nañu yàlla defal ñu teewaat ko fii ñun ñëpp te kenn bañ a manqué ku fi andi wéri di yàlla na ko saa borom saafara ku fi andi laneen lu mën a doon ci sa biir xol saa borom xam na ko ndax xam na li ci rakki xol yi yàlla ñu saafara lépp barke xaadimu rasul noonu daal am nañu cant am nañu ngërëm ndax bu doonoon dërëm ko la ñuy def ndax liggéey bii kat dafa nuru lu rëy waaye lu woyof toy la ndax ñun li ñu ci war mooy lii rek daf ñoo tiim ni ñu bi tiimee lépp dafa woyof toy toy toy toy la def te loo xam yaa ngi ko tàmbale woon da nga naan def altine wala nga def alxamis ajjuma di jëlal bi si ci des nga dem ba mu yàgg ngay def par semaine ngay dem ba mu yàgg nga di ko def weer bépp dem ba soixante-dix millions di ko tudd jëm cent millions waaye nag sant yàlla ndax sëñ Tuubaa dara jomb ko ndax dafa defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaare ko ci moom jéeme ko ci suñu borom loo xam ni kenn mësu koo def kon nag dara jomb ko ci diggam ak boromam ñun taalibe tamit luñ ko jëfalit dañuy jàpp ne dañuy jéem rek waaye dara jëmb ko ci suñu diggante moom te bu ñu xamoon lam ñuy dencal ak lam ñuy defal ak lam ñuy laqal jàpp naa ne lu ci waaye def da ko xeeb te am na mag moom wax ne ma de dafa am mbokkam moo xam ne dafa nekkoon jamono ba xëy génn àdduna mu gént ko waaye neen lam ko wax mooy li may rëccu daal mooy la ma daan def ci liggéeyal sëñ Tuubaa daal mooy li may rëccu ndax nee na foofu mu nekk rek nee na sëñ bi day def waxtu nag sëñ bi ko indil añ di ko indil rek di ko fa mu nekk ci waa moom ma ngay barsàq nee da koo gént naan ko waaye neen añ bi may indil ak ndékkil lu ma ko mas a defal indil na ma benn añ boo xam ni wecc na na ko ci loola kon nag liggéeyal Sëñ Tuubaa noonu rek la kon nag bi ak ci turu Sëñ mi nga xam ne moo jiite mooy nekk secrétaire général ak Sëñ Yaaf Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ ko teewe déwén te bu yàlla bu kenn manqué barki xaadimu rasul liggéey yi nekk seen kanam it ak yu mën a doon li ngeen sumbal seen bopp li leen sëñ lépp it yàlla ngeen ci am ndam na ngeen amee ndam ci liggéey ci des yëpp barki xaadimu rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi jégalu ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba li mu yéen liggéey sëñ Tuubaa mu jox ko te ñu ànd ko ak moom di leen nuyu turu sëriñ Afiye bu sa imam mi jiitu daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifa daayira bi yëpp di leen nuyu tamit turu membre daayira bi ak kilifa yëpp ak mboolem commission yëpp di fi wuutu seen jëmm yooyee nga xam ne ñoo fi daa bokk di nekk te am xew-xew bu dal ci ñun doomu baay bu wàccu liggéey ñenn ñi nekk ci sëñ Abdoul Ahad bi sa Ceerno mi ngi leen di nuyu a sëñ Abdoul Ahad mi ñoom ngi leen di nuyu ñoo daa bokk jataay bii moo tax ñun bañ demee ba egg fay bañ jullee ba noppi ñoom ñu dem continuer ca barab yi ñun ñu ñëw ngir wuutu leen fii ci liggéey bi waaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mu mel ni li jotoon a wax tara wax ti turu daayir bi yëpp Cheikh Abdou Khadir Niang wax na ko kàddu yu jot yu rafet yu paseefu kon daanaka mën nañ ca jot ay cant rek waaye di leen nuyu di leen sant di jiital ci cant yeeg gërëm yooyu mboolem kilifa yi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi loolu nag dañ koy dalee ci ki jiite fédération bi di Serigne Mbacke Ndiaye wàcc ba ci sëñ Mor ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm cant ngërëm yooyu yëpp nag dañ koy teg ci ki nga xam ne mooy coordonné liggéey daayira Muxaddamatul Xidma ci Espagne di bàyyi daam loolu moom Cheikh Moustapha Karim ci bi mu duggee ci daayira beeg léegi jëfam ràññu ko na lool pastéefam ràññu ko na lool ku na xam ne liggéey bi eggale na ko foo xam ne pastéefam moo tax mu eggale ko fa kon ñu bàyyi daam ñu ngi nuyu nuyu boobu mi nga xam ne ku ne xam ne pastéefam ak jëfam juraañu ko ci daayir Muxaddamatul Xidma yàlla dogal na sax seere la lii nga ñëw di jëbbale seen addiyee ci koor gi ñun dañuy def at mu jot bala ñu tàmbali gi dañuy dem Sëriñ Tuubaa Séex Mamadu Muntaxaa laaj ko ndigal yàlla suñu borom dem dogal bañ demee di ko laaj ndigal fekk fa sëñ Aadi mii ñu daje fa bañ fa dajee dañoo jàpp loxoom ba sëñ bi seereel ko jëf joo xam ne waa Espagne ñu ngi koy bokk di jëf te sëñ bi lañ ci joxoon ndigal bu yàgg ni leen na ngeen jàppale jumaa ji ak ñi ci jumaa ji yàlla dogal kon loolee ñu seero ko ci kanam loola jëf joojee li sëñ Abdou Khadre doon wax si Muntaxa waa Espagne loolu moo feeñaat foofu ndax moo ko moo ci joxoon ndigal gént yi jëf kenn ci jëwriñ yi ba demee di laajal ndigal koo ko teewaat kon mel na ne loolee jëf ju ràññu ko la kon yéen kilifa yi fi ñëw yëpp El Hadj Abdou Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax ndax li ngay doon daan mag yokkatoo tayoo yaa ngi egg liggéey bi ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu sëñ Dame Lo moom Ibisa ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di nuyu sëñ Mor Tambidou waaye loolu jataay bu xat bi daana tax bu ñu yëkkati nuyoo teg ci loxol suñu Assane Diop teg ci loxol teg ko ci Matar. nu nuyu suñu Assane Assane Diop mu tegal ñu ko ci mboolem liggéey yi nga xam ne moom lañu ñu waa Espagne ànd ko ñun ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ci loolu di leen ci garam kon daal dafa mel ne ala suñu ah, suñu Ablaye Diop yaa suñu aadi ni nga ñu jotal ay cant suñu daam El Hadj Abdou Ndiaye suñu Malle Ndiaye sëñ Touré sëñ Abdourahmane yéen ñëpp daal kenn ku nekk boo demee mbokkum teel boo gis ne nga xam ne daayira mu xadama xam ne ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm waxtu dafa jot dafa mel ne fi ñu toll ñu a dog ba tax li ñu bëggoon wax lépp mu wax te sëñ Abdou Khadi ñoom wax ne li ci wax ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban